Radio à Dakar. tey en tant que policier ak ak ak lutteur ban message ngay lancer jeunesse bi. waaw tey bu ñu nekkee policier nekk mbër je crois que tey loolu link la bu mu nekk tey bu ñu joué parce que en général sénégalais yi dañu naan policier yi social luñ wala duñ jege askan wi tey nag rapprochement boobu gars yi di laaj moom lañ nekk di def nii. parce que li ko directeur police waxee rek général Ousmane si dama koy saluer au passage moom bëggul chaque quartier mom commissariat mais lim centre bëgg mo ñuy centre la présence de la police dans la cité. d'accord est ce que légui mën nga ñëwaat ci sa palmarès bi nga commencé lamb ba tay lan nga fi defagum. wa lamb li mo ñëk def moy championnat universitaire ba mon Stade leopold 2011 la won 2011 leopold man ma jëlone médaille d'or catégorie 75 kg ma am médaille d'or am trophée meilleur lutteur mu nekkoon un doublé. parce que bima ñëwé gaay dañ ma jappé won ni dama ñëw pour kaf ñu ah police bi dal du am dara ki ndawaayam bi kii xaaral ñu defal ko bagage yàlla dimbali ma ma daan gaa yëpp combat ah, a yokk tuuti ay 80 fii a fi ma ne ah, daal du daw comme que fii daal gaa ñoom ëpp baal ma jéngu rek dimbali ma ma dem ba demi finale parce que gaa yi yaakaaruñu sax naa génn deuxième tour ma ne ah garaawal ma jéngu ci poids lourd ba demi finale ma médaille de bronze ma sant yàlla rek ma xam ni kon man amatuma lu may ci làmb war naa mën a bëree ku ne. léegi ak sa liggéey ci biir police est-ce que am nga temps pour ñëw entraîner wu. waaw parce que sama combat bu njëkk rek moo xawoon na compliqué parce que boobu maa ngi woon GMI groupement mobile d'intervention ma leen saluer mais bi combat boobu dama ko gérer ba génn si yàlla may victoire gars yi am confiance nag ne ah suñu waaj kat kon jar naa jàppal nañu ko jàppale. ci lañ ma affecté woon école police si directeur Ousmane Gueye nga xam ne ku baax la ma koy saluer sam papa moom mooy chargé moom mbirum mobilisation chaque jour moom moo ñu koy gérer. léegi ñu wax ci sa combat ak wulli moom de nee na dina la dóor dóor la dóor la ba ku la gis dootu la xàmmee. wulli de dafa saf xorom rek wulli moom xam naa ni waa kii ñiy def théâtre ñoom ay saane ak yooyu ñu ngi yàq xaalis quoi parce que wulli moom xam naa ni ku ko defoon ci théâtre di nga am lu bëri quoi parce que moom day day théâtre rek. gis naa ko muy soobal di yëkkatee gi mais ko na def ndànk de wuyu ma moom amagul combat mi ngi doog a bëre ci arène ku ne mbër xam ne dina am ñu nekk si ginnaawam yow kan moo nekk sa ginnaaw kan moo la ngemb. man Sénégal ñoo nekk sama ginnaaw mbër askan wi waa douane waa gendarmerie waa police administration pénitentiaire ak civil yi ñoom dansil la. mais ku ne policier xam nañ ne policier yi amuñu xaalis yow tamit Pathé wax ñu rek wax ñu rek. non dama la ñu sama ginnaaw laa limal ñoom Pape Koulou Diop ak Youssou Ndoye ak ñoom procureur Ndoye. ak ñoom grand cooy. mais est-ce que ñu ngi génn xaalis bi. ñoom daal ñu ngi def li ñu a def yëpp vraiment ak ñoom commissaire Fall xam nga barki démb commissaire Fall dafa yónnee ñaari keesu moo xam sa yu baax ak suukar su bëri naay préparé combat bi parce que guddi gi mënoo lekk benn repas rek. ak mbaa bokkoo ci mbër yi mbaa bokkoo ci mbër yi ndekkee 5 litres fondé rek. 5 <laughs> lan. 5 litres fondé. sama xel nangoo ko. <laughs> non loolu non loolu c'est trop quoi non damay ndékki comme li nit ñi benn mburu laa jël rek naturellement def ci ñaari nen rek xam nga ñaari nen baax na. ñaari nen kese. non deux nen par rapport ak li nga soxla deux nen rek bu ñu baax. loolu suur na la. ak ah, non ak benn. non wax ñu rek wax ñu rek. dama si ñam rek su ma demee. soo demee entraînement ba ñëw soog a ndékki. waaw saa saa ma jaar bureau directeur DG fekk muy añ ma lekk yëpp dem. Ousmane si ma koy remercier mu nekk maa ngi jéggul nag sa añi may añ noonu mais su ma daanee wuli rek <laughs> nga kontaan incha combat wulli bi lum la jaral lan mooy enjeu combat bi. waaw combat wulli dama ñëw daan booy bawal gars yi di ma xaar ma ñëw sama combat teg soog ñu gis ni mu demee moom erreur sans verdict malheureusement sama combat kukuma ma ñëw yaakaar ne mooy gën a yomb ma ci benn déception defet boo xam ne nii dafa kaw. combat bi nag nekk combat woon dafa laaj teey ak concentration a ko soxla parce que wulli dégg nañ li mu wax nee na policier dañu ko dóoroon mu war ko fay ci man man nag foog ma dabbaliwaat ko parce que dama bëgg deux heures bi mu dal ci moom. kon policier dañuy no moom da koo wax man fekke mu fu ñu ko dóoree xam nga day sos boo demee sax lu mu sos la kenn dóoru ko day keree rek xam nga dama bëggoon jot mais bi yoon moom dinaa ko wuli parce que dóor yi day am contrat xam nga dóor xam ne ne yàlla mataar ba xëy rek suba lancé message CNG ñu reconduire benn bureau bu bees jàpp date ñu xool combat parce que man sama yaram day xasan fi mu toll nii te foog moo dàbbale waa ji waaw léegi lan yan yan yeneen yeneen projet yan nga am pour euh, si biir làmb ji ak en waaw comme biñ ñëwee dañu fekk làmb ji mbëri amuñ métier te dañu ne foog ñu indi métier ci làmb ji am na ay partenaires yoo xam ne ñu ngi mettre en place ay affaire pour bëgg mbëri yenn mbëri ñu utal leen métier fu ñu leen nekk mbër nekk garde procès sécurité boobu ànd ak am nañ yeneen société yu fi nekk am nañ tamit ay projet ak ñoo xam ne ñi comme MMA bi nii am nañ ci ay partenaires ñoom Sala Diop am na lu ñu defoon am na keneen kuy tëgg combat Bamba Dié bi te lu bëgg mooy permettre aux jeunes am yeneen possibilité pour mën a liggéey parce que man comme ni ma amee chance nekk am possibilité boobu nga xam ne ne même boo amul combat tu as la possibilité tey nga mën a dem def benn affaire parce que tamit ni nga nekkee journaliste nii mën nga pare entraîner comme laay caméraman bi ñu koy saluer au passage. ndax bëgg nga nekk roi des arènes. waaw roi des arènes moo ñu tere delloo ñun waa police yëpp ah, nii homme de bëgg su jëlee combat bi agul li jël ñaari mbër wala ñett rek Balla Gaye ak ñu jox ma chance après bu ma ñëwee ñu joxee dem jëli saawaay ku fi nekk rek ma jël ko suma ma daanee après jël couronne bi ñu yóbbu ko intérieur denc ko foofu. d'accord léegi ñuy nga entraîné Wow, euh, léegi nag egsi nañ ci cëppaandaw gi ni ngay waxee ci olof ñëw nañ entraîné ba contact pare kii ma taxawal nii sama rakk la sama boy la King Paco moom mi ngeen gis ni ma taxawal nii mi ngi def formation en management hospitalier li may def lay def day liggéey teew ko chaque jour dañuy tase fii di entraîné bu wan leen toujours que li ñu doon wax lu mën a nekk la ay jeunes ay sénégalais lañ mais sport bi na nekk passion Paco looy wax gars yi bëgg a def sport bëgg a def te Voilà, euh, je vais commencer par la phrase qui dit qu'un esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire que l'espoir, mon bon, de faut faire une concentration, une vigilance. Donc, en fait, l'espoir, c'est bénéfique pour tout le monde. donc dama vous conseille ñi nga xam bon yàlla def na amuñu liggéey lamb ji facteur de développement c'est un c'est un c'est travail comme peut faire comme tous les autres Hein, tu, peux, tu peux gagner de l'argent, hein, nourrir ta famille avec ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans un pays comme le Sénégal où on n'a pas de travail, je, vais conseiller aux gens qui n'ont pas de travail d'essayer, pourquoi pas, de se reconvertir dans la lutte pour gagner de l'argent et voilà, réussir comme tout le monde. Quoi. Voilà. waaw une bonne li Je wax rek mooy président la taxawal ñu arène nationale lu avons doon jooy ñu defal ñu di masaw coono ñëpp ñi fi génn àdduna ñu leen di jaale di masaw coono ñëpp encore di jéggal ñëpp ku ñu tooñ ñu ko ñu ngi lay jéggalu di masaw coono ñëpp di ñaan ñëpp am jàmm Sénégal di wax ni ñu ngi leen jox rendez-vous incha allah rabi sama procès combat maag wulli wulli waat ma fas yéene wulli wulli méttee méttee du ma mooy wulli. jàngal ko bëre dinaa ko wulli jàngal ko bëre ku bëgg a gis combat du siècle na nga ñëw sama combat wulli instant bu leen ko kenn et eh, waa Vibe rajo xam nga lu ma leen wax a 2.3, Le nouveau son.